na ma baal ak yàq naa seen liggéey nag. ñu baal ko naa yàq liggéey bi. wax naa Lamine mi. moom ko. mu ne ci Seydi Hadj Malick la jaaroon. ci Seydi Hadj li ko indi ci dëkk bii nag bàyyam bi ko jur moo indi ci dëkk li ci kuy waaye bi mu fi likkee nag la muy Seydi Hadji Malick dugg na ci. waaye nag bi mu ñëwee fii la muy maam El Hadj dugg na ci. ndax sama maam Alioune Seydi Hadji Malick di ko yónni woon yebaloon fii mu doon fi am ku fi firi alxuraan ci biir. ndax kat Ba mi jur Adel Awa Sadio mu jur sëñ Abdoul Aziz dir Baye bokk maam El Hadj Malick yabalee ba mu dikkee am ku doon jàngal alxuraan fi la ko fii ci maam Nit Sall. àggalee sama baay fekk na jàng alxuraan ci ba bind kaamil. nee na fekk na kat maam Mor na alxuraan ca bind kaamil. ba bind ab moo takk nag kaamil jox ko ba fas yéene ko indi jox ko maam Alaaji Malick. jox ko bàyyam bàyyam mu dem ci Seydi Hadji Malick. ko si kaamil bii di maa ko bind. ni ko si di ko topp. Seydi Hadji ko topp ba mu àgg. di ko ne cey bi alxuraan de fa mu ko ku fa fekk fa alxuraan. kii de fa mu bàyyi koo ku fa alxuraan. ne ma xam ne alxuraan ji manqué na. nee na xam ne kon alxuraan ji daal manqué na. ginnaaw say daañu maa ngi di kuy bu yàgg mu alxuraan ji ku dem fa mu bàyyi ko nga ko yóbbu alxuraan kon alxuraan ji kaamil bi am na yàq. ma daal tekki samay bagage. nee na ak alu daal di jël alwe laxasaat laxasaat di jàngaat di jàngaat ba bind beneen keem kaamil ba bindaat beneen kaamil mu ñu jox ko Seydi Hadj Malick mu ñëw joxaat sama Hadj Malick sa sa papa nee na Seydi Hadj Malick di topp kaamil ba mu àgg nee na maam Moor nee na maam Hadj Malick di topp kaamil ba mu egg ñu ne mu ne baarakallahu fii mu daal di ne baarakallahu fii sa papa ne ma daal xam ne kon alxuraan ji rafet na nee na nag maam Moor doon xam nag alxuraan ji ko indi daal nag rafet na ma takk fay ay bagaasam daal dem njàmbur fekk nag dem njaambur. mu dem ca baayam toog fa. naka mu dem nag am soxna. am soxna. bu nopp alaaji Modou Seye mi juddu. juddu. ba ba commencé jàng alxuraan. baayam ne ñëwal ma yónni ci maam ñetti sàll. nee guy mbay. ca guy mbay. booba lépp lu bàyyi ko ci Seydi Aj Malick jëm ci mag ñi. lépp koy jot lente. dañ bàyyi daal sol dàllam. nee na maam di sol aw amul. lu ñu war amul. amul. doxe ngeen. doxe si fii. ba egg si muy fekk sama maam Aliou moom di fi jàngale xam-xam. mu fekk nag ko. mu daal nuyu maam neete daal na ko sama baay di moom a yónni woon ci yow ñu ko lu mu wax mu daal dindi leetar bi mu ko bind dala koy tontoo ba ba àggee ba jëlee ba noppi ma daal tontu na ko tàllal sa loxo ma ñaan la sama baay nee ma génn fekk si Alioune ba toog di jàngale mboolum bëri wër ko mboor bu bëri wër maam Serigne. nee ma jox ko loxo. nee na maam Mor jox maam Serigne. nee na sant ma ne ko Sey laa sant. nee na maam Mor maam ko noo sant mu ne ma foo dëkk ma ne ko ngel. mu ko yow fan nga dëkkee ndongo yi ko man ngel Sey laa def. nee na mu laaj ma alxuraan ma ne ko alxuraan yi fii teel war na boor bind naa ba jox ko Seydi Hadji Malick. ñu ne sama maam commencé jàngale rek sama baay di ko déglu nag. nee na nag maamam jàngale nag. nee na papa di ko déglu. ba wàcc jot. mu daal tàggu sama baay. mu maam maam ni ko man maa ngi dem. ni ko de maa ngi dem. bi mu ñëwee ngeen nag mën a bàyyam. ne ko man di daal ju ne naa ci. dem naa njaar ne. dem naa njaar ne. waaye guy mbay di fekk naa fa ko xam ne kii guy mbay di fekk naa fa koo xam ni. xam-xam ba. na mu rafete ak na mu leere naa bëgg nga bàyyi ma ma da di fa noori man daal dama di fa noor di di fa déglu ma fay dégluwaale wuur lu ma maa bi ñëw ruuj ruuj heure jotee sa sa nag nee na loxo loxo gopp ab gopp nee na keroog moo jógee ci daal ji la ak mujj tey ci loxo. nee na nag bi ñoo koy defal. parce que fu ko topp ñi jàng alxuraan ñoo na ko ñëwal dem ba boo demee nga noor fa. mu daal fi fii dikk nag. ba noor bi jeex. ba noor mu dellu ngeen. bay tool ya. ca tool ya dikkat dikkaat. ci ci maam ci ci góor gi. ci am na fi ay at di. si si Aliou am na fi ay at. benn bi Seydi Aj Malik ni ko euh, Aliou. benn guy mbay te nga ñëw ngumba ndax gan. yow nga ñëw gumba ñëw dëkk fa ndax gan yi ñëw. du gan yi commerçant de ah, gan ay borom xam ay ay xam-xam lañu. yow rek yàlla mën a dëkku yàlla mën a teer. loolu kat yow dong yàlla a dëkku ci yàlla mën mooy sababu ba képp guy mbay dem gumba ci Seydina Aliou Malick mi ko fi jëlee

sama maam daal di jóge fii daal dem Ngumba. ba ma demee Ngumba nag. ba mu Ngumba nag. ci mbooloo ma gën a bari. nee na maam Sëriñ mbooloo ma gën mi fii xaw a gën a yokku. fu mu jaar rek muy mbooloo. fu mu jaar lu jàng ak jàngale. waaye daal ñoom daal seen liggéey nee na. nee na maam moo wax na ko. dama ànd ak am ak góor gi ñu dem jaar ne fekk fa Seydi Hadji Malick. ñu gudd na bokk benn néeg bu ñu leen fanaanal. bi ñu jullee gee ba ñëw ci kër gi. nee bi. bi. nee na Seydi Hadji Malick di sukk na na daal sukk na ca ndab la. damaa xamul ñaar yoon la tibb xaw ma ñetti yoon waaye lam tibb bëriwul. maam moo daal nee xamul Maam Alaaji Malick ñaari yoon la tibb wala benn waaye leen tudd daal dañoo. naka mu raxasu daal di kàbbar naa fi la. naka mu raxasu rek daal di kàbbar commencé fab loxoom bi daal ko ci suñu gab daal ne moor. bu ngeen bu ngeen gëmmantu tëdd fi ci sama gannaaw. daal di fab loxoom nag daal di teg ci loxo ci moor ne ko moor su ngeen gëmmantoo daal yéen booy tëdd rek. sama bàyyi ne ma tëdd góor gi Abdou Dia Xaadir ji moom itam bu dee la pour mu tëdd. nee na moom maam moor tëdd góor gi Abdou Xaadir moom tam tëdd nekk ci nelaw jël na Abdou Khader jël. nekk ci nelaw jël na Abdou Khader. sama baay nee na nelawuma. gëmmentuwuma. ma di ko déglu. mu di ko déglu Seydi Hadj di riib alxuraan ji. Seydi Hadj Malick di riib ba am fukki isib ak juróom. ba ko. feggi andi andi waat fukki sama juróom ñu ne fanaane alxuraan ba njël di jot ñu ne Seydi Hadj maa ngi nag ñu ne baat bi day li lay ñaar day mën na day foñ baat bi day mu njëkk bi yàgg mu mu ñu dafa am lu ko fettax rek mu jëm kaw waaye baat bi neexaay bi loo ko loo ko loo ko mën a dégg nee bi mu agsee amee sa aloona. nee na nag ba mu agsee ba ci amee sa ji yow. nee na góor gi Abdou Khader ja nag faf mu yow. jégg mën na ne amee sa aloona. fekk mu ni xàmmay lan. mu ni xàmmay lan. sama bàyyi nee na la mel na ku dee rek. maam war nag daal di mel na ku fas dee foofa. moom bu yëngutul. moom daal yëngutul. bi si ma wàccee wàcce kamil ba bi maam Alaaji Maalik wàccee kamil ba eggale. nee na mu yëkkati loxoom dóor ma ci tànk. nee ci tànk. ne ma moor. ne ko moor. jóg leen waxtu waa ngi dikk ñu ne ñu dur jóg jàppi nee na ci ne ci takkusaan lañ fa dikku nee nañu daal dem jëm jàkka ji julli suba dégg maam daal di wërsi fa di ñëw ci kër gi nag nee na benn baat nee na daal maam maa du waxulu benn baat nee bi li génne jàkk ji nee na Abdou Khadir jënd ma sëñ Mor ndax suñu demee Alaaji Maalik dina waxtaanu noonu nee ah maam maam Abdou Daa ni ko sëñ Mor est-ce que bu jógee ci jàkka ji bu egsee maam Alaaji Maalik du waxtaan ak ñun. ñun de bi ban dikkee ba ci waxulu benn baat. ñun de ba léegi bi ba léegi moom waxulu ñun benn kàddu de. bi dikkee ci néeg bi. ba ñu ñëwaatee ca néeg ba. nee na Seydi Alaaji Maalik daal di wàcc kaamilu alxuraan bu ñu ajoon ca kaw. maam Alaaji Maalik daal di wàcce koy daal di koy teg ci suuf. daal di koy teg ci suuf. daal di ubbi ko bopp baqara. daal di ubbi nag bopp baqara. bi mu jàngee Faatiha bégal commencé alif laam miim saalika ba mu àggee ci mufli xool. ba mu àggee ci mufli gees. nee na sëñ Sidi Hadj maa gees. ah man de man Malick. ñaar fukki at ngi. ñaar fukki at mi nii. yëgu ma fu ma fanaan te naafilaawu ma fa alxuraan yëguma fu ma fanaante naafila wu ma fa alquran yëguma fu ma yendu ci naafila wu ma fa alquran yëguma tam fu ma fu ma jàng fu ma jànguma fa kamil alquran te jànguma fa kamil alquran du waxtu noor du waxtu noor du waxtu nawet du waxtu nawet du waxtu am jot du waxtu am jot du waxtu ñàkk jot du waxtu ñàkk jot du nekk waxtu feebar du nekk waxtu feebar du waxtu wéradi du nekk waxtu ñaar fukki at ngi sama kamil alquran bi génnal ma ko guddi bëccëg fukki ñaar fukki at yi ñaar fukki at yi daal génne lu ma guddi ak bëccëg sama bàyyi ne man ne ma fu ma jëm man nee na maam war ma na xale yi ma yor ñu ngi ñu ngi jàpp tari ñu ngi tari par fukki suba juróom ndax man xale ma yor rek ñi ngi jàpp tari fukki isib ñi ngi tari kooku nan laa koy boole ak di di nafila alxuraan. nan laa ko mën a man moor. kon naay def kon naay def guddi gu nekk ma fexe ba nafila fukki isib ba guddi gu nekk saa bàyyi ne moom fa la moo tax ku si. moo tax képp ku xam ne yow sëy nga bokk ci ñoom. bokk ci ñoom. de. nee na ci ñoom. seen maam lim mu liggéey ci yàlla kenn liggéeyu. parce que seen maam li mu liggéey ci at guddi gu nga nafila alxuraan suba ci nga yelloo ko jàng te xeeti ñaan yëpp nga ci seen maam seen maam yóbbaale na leen ci lépp na ngeen balaq nag si bi kat moom ngi ma jégal de waaw